gis-gis ak euh, Mamou Diaby Gassama maamu lan nga ñu indil tey ci rubrique gis-gis. waaw Fatou. xam nga mhm. rek 8 euh, mars oblige euh, journée mondiale de la femme. dëgg tax na rek suñ xel daal di dem ci euh, jigéen ñi. ngir mhm. rek ni daal di choisir thème ba nga xamante ne dañuy waxtaanee jigéen ñi. Mhm. rôle ba nga xamante ne moom la ñu war a am ci biir société bi. ndaxte bu ñu nee jigéen rek dañuy wax développement. donc tey Oustaz Diaga ñu gis ne rek jigéen am na rôle yu bëri yi nga xamante ne mën na ko jouer ci biir société bi. ngir rek Euh, société bi jëm kanam mais aussi euh, développement am Euh, dans le respect mutuel kenn ku nekk respecté moroomam muy ci biir kër yi muy ci biti ba ci ca bërëb liggéeykaay yi euh, Oustaz euh, Souleymane ñu ngi koy nuyoo sànq moom tamit wax na lu am solo ci rôle jigéen ñi ci biir néegu sëy mu ngi doon wax ci affaire u jonge ay yooyu tey jii ñun ñu bëgg a xam au delà de affaire u jonge tey jigéen ban taxawaay la war a am ci wetu borom këram ngir rek liggéey parce que dañu ne derrière chaque grand homme il a une grande dame tey jii dañu bëgg a wetu borom këram ngir rek kooku liggéeyam mën a ñong bu baax a baax. waaw jërëjëf euh, dawrul mar'atu fi mujtamaa mooy taxawaay jigéen ci société bi. ba ci jiitu mooy bi mu nekk bane aadama yàlla boole ko góor góor bari ko jóor muy borom këram. yàlla def ci mu am lu meññ muy ay doom. kon nag dafa am loo xam ne bi yàlla da koo boole. Euh, sëñ bi wax na ci sànq lu am solo. Mm-hmm. bi maanaa ñu tànne ko ci ñeenti jigéen ñi. hadiyatu fatimatu bintu rasulullah mm-hmm. asiyatu bintu mazahim fat ak lan mariama mm-hmm. mais ñooñu lan lañu def ba yàlla gërëm leen ne ñii may naa leen aji kër ajana kon jigéente yi ku ci def la baax lu mel noonu dem ajana mm-hmm. kon kon la baaxoon la la baaxoon la la njëkk la bayte lu fi baax tey ci cosaan na ci euh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam parce que nit ki nag euh, soo dee wax ci euh, le 8 mars ñu jagle ko jigéen alxuraan mooy njëkk 8 mars sourate Nisaa it muy lu gudd lool waaye na ba lay ñëw nag ci jamono yi loo xam ne nit la comme ñun te gën ñu muy Seydina Muhammad mu ne baada bay atu rijaal yi ba góor ñi jaayante islaam dugg islaam ca fatu màkk ci kër Abu Sufyaan Abu Sufyaan këram ca màkk mi ngi tudd na Safa da nga ñu ne Safa ak Marwa Safa gi la Abdou Kousine kon hmm. Rasulullah fa la fa la recevoir ñëpp jaayante ñoom hmm. bi góor ñi passé jigéen ñi ñëw ne nag yonent bi na bëgg nañu xam suñu àq ak suñu lan mooy suñu rôle xam nga wax na ko jaahiliya ni ku toll ni Omar ibn gas kaam dugg ci doom metti na mais gis nga bi jigéen ñi jaayante yonent bi ca ca ca ca Safa kii jiitoon chef de délégation bi mi ngi tudd Hinda Hinda moomu nag dañu dem bay yàgg yonent bi di wax ci lan la lislaam bëgg mais bala nga ne war ngaa dugal dugal liggéey sàmm say doom sàmm sa àq sa yelef mais religion bi nga bokk am na ñu la sant ak lu ma tere ba muy jaayante moom salaahu comme nag ñëw ngeen ma jaayante leen ma paanu ndox ñu indi paanu ndox teg moom mu jëkk a ci ci paanu ndox bi mais paanu lu tax koo xam ne duggagul islam nga nga recevoir ci jàkk yàlla te duggagul islam bu doon ci islam da ngaa ko sangu jil mais ngay sangu ndax bëgg na sangu moom yonte la tax mu jublu ci raxasu moo ko xam ba ñëpp nag pare mu ne nag mënuma wax ak ñëpp ut leen porte parole jigéen ñi ne comme bi nekk ci yaahila tekkoon ceddo hind mu nekkoon seen patron te ku ne xam ne hind moo def lu ñaaw ci lislaam ndax moo rey xam mi xamoon doon général gare mm-hmm. xaram mm-hmm. xam loo ci jàng moo ko reylu moo ko reylu mm-hmm. loolu loo ci jàng mujj gu rafet moo am solo te yàlla da koy jégal kenn du jégal ko yàlla ah, bi mu ñu ci ñëw ci yonent yàlla Muhammad dafa masque muuru ndax ci néegam la génnee ñoom ñu def yi ko la génn na rasulaay hind kenn du ñu jiitu fii te nga nekk suñu njaati gi mu ne ah te ngeen seet kenn ñu déedéet mu a kon nag comme amaam am dañu am bi mm-hmm. bulka bi ngay dégg néeg bulka mm-hmm. ma def ko ngir du ma xàmmee waaye olof leen ko wax feeñ waaw bu ñuy na kon nag lu ma la da nga koy def mm-hmm. dama bëgg ñu li ma bëgg ñëpp ñu jàng ci li may wax lii du histoire la xam nga c'est pas addis déedéet soo jàngul histoire am na yoo xam ne bii doo ca mën sori yent bi ne ko an laa tasriku billahi shay'an yow hind mu ne ko na am mu ne ko neel jigéen ñi la war ñëpp nañu bokk bàyyi bokkaal yàlla bis ni ki tey mu ne di ngeen rasulaay ne nañu bàyyi bokkaal ak yàlla du benn mhm. lu mu ci teg bu ngeen bàyyi sàcc ñaar ñaar parce que boo nee bokkaal ak yàlla comme sir ko génn na sàcc day tax nga lew hmm. mu ne bàyyi leen sàcc mhm. fii ndaw si muuru masque ci lay feeñee yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne ko mu ne bàyyi la yonent bi ne nañu bàyyi sàcc la tasriq na yonent bi ne ko taxawal sàcc dafa bëri façon bëri xeet sàcc aya ngi ci waaw mu ne ko am na koo xam ne bii ah, ngeen baal ma ne am na koo xam ne bii posetam la garde la denc mm, borom këram summi ko mbaa muy nelaw mbaa mu fàtte ko fa nga am loo soxla ci café gooy do café goo bëgg suukar mm. xam nga juróom dërëm la mm. mu ne boo ci rocce juróom jëndi ko café suukar ngir café gi ndax borom kër ka moom ci xeetu sàcc la bokk parce que tàggawoo ko te bu mu yeewee aussi waxoo ko ni jot nga ci. très bien suukar. ca la feeñ na. yaa rasulullah mu ko labbayk eh, ko labbayk mu ko am na góor gu ak a nay bu la jox dépense 750. 10 mm-hmm. francs boo ko ci yokkee am nga am problème. yonent na ko ah damay bëgg jombi xanaa. Mm-hmm. abu sufyaan mm-hmm. benn jabar laa ko xamoon. te kilifa ci màkk buy takk ñëpp dañ ko jébaale yëgal ko kañ la fi takk ñaareel. diw laa ko xaman mu rek ndaw su yuuxu na man la. man la hind man la hind xam nga mën na man la as góor du fen waaw góor fen man na ko man la la ko rasonné kon nag dindil bulkaa bi te nga bàyyi xijaab bi ngi ndax ñu mën laa identifier mm-hmm. ba ko tam am nga loo ci jàng mm-hmm. léegi nag am na fierté ne ko boo léegi del yëglu ndax ñett dërëm yi nga jël bu ëllëgee da nga jël juróom Hmm. fukk te mën a yàq sa sëy hmm. xam nga ko éducation la hmm. lu mu ci teg bàyyi leen njaaloo kon bu ñu ne le 8 mars ngay doomu jullit la islam wax jàng ca ba pare nga mën bokk ci 8 mars ba mu ne bokk bàyyi leen bokkaale bàyyi leen sàcc bàyyi leen njaaloo laa tas nii na bu leen njaaloo bu leen njaaloo bii nag am yu bëri ñu ci dugal ngeen baal màq ban la ci dafa ne wala taqtulunna awlaadakunna bi waadin wala isqaat sallallahu alayhi wa sallam bi maanaa bu leen rey seen doom fekk mi ngi ca wàccaay parce que jigéen léeg-léeg bu ëmbee dem ba am 4 mois et demi. Mhm. am yëg na ne li ci biir sot nu uta nag ba muy commencé. Mhm. ndox la woon. Mhm. foofu ah problème avortement. avortement fa fa ko waxee. Hmm. mu ne mu ne ndox mu weex moom day soppeeku nekk deret deret googu da mu commencé nekk pat pat boo nekk day nekk suux. mu ne bu suux jotee boo ko génnee rey nga nit moo a mu ne wala tab tuuloon bu leen éliminer awlaadakunna seeni doom. bi wax addin fekk mi ngi fii nag na ndaw si ne ko yaa Rasulullah bu ma jaaxal mooy que lu mu wax ci Omar ibn Khattab laa bëgg a leeral mu ne ko yow yow oran yonent bi yaa ne bu ñu rey suñu doom te xare Badar xale yi ngi fiy rey la foofu nag la Omar jooy ndeysaan ba yëqit jóg bëgg a daw yonent bi ne ko toogal lu tax mu toog mm. pour moom ndaw si Omar lay waxal ndax mm. Omar ci jaahi la dafa rey doomam Hind mhm. oh, na ko yaa rey suñu doom te ñii dañu amoon ci ñoom yaakaar bu ëllëgee ñu nekk relève Sénégal au relève musulman au relève suñu njaboot nga éliminer na ko mhm. moo tax xeex baaxul. waaw mais dama bëgg a xam aussi parce que yaa ngi wax ci côté ay mais li diine di jàngale mooy guerre bu xasee bu am wax nañ moytu di rey jigéen ay xale. Mhm. mais aussi euh, mooy li ay di yàq. loolu diine da koy tere léegi nag léegi nag ci léegi nag xare xare badal bii nag ba mu le islam defaat structure bi maanaam euh, def évaluation musiba bi amoon comment ñu éviter ko moo tax ñu ko ne ko nekk bu leen moo tax ñu bu leen rey kii lii moo tax jigéen du dem xare ñun léegi jigéen bi demee xare benn mën a gis awraam mën nañ ko toroxal mën nañ ko habillé te néew na doole te néew na doole islam ne kon bu mu demee ti ba ak gone yi nga xam ëllëg relève la ñu doon Hmm. ak mag yi xam lu bon bon am na expérience. Hmm. kon kay kon islam bëggul xeex. lii nag bu ñu demee ba dem nag ñun en tant que musulman ñu ne kon nag léegi nag hmm. Seydina Mohamed nag kon nag lii nag comme dem na ba respecté parce que respecté euh, bokkaale. sàccootoo njaalotoo kay ku wax nga war a doon léegi nag lees mooy que nag mu nag inna njaalo sa daa mel ne bi mu ko waxee dana ko ndax as gor dana ko as gor la bala ko wax mën ko xal xodul tatas nii mën ko ndax gor dinaa njaalo hmm. nga ne boobu <laughs> moom mu reende sàn même bu dul même bu ko hmm. moom da ko laaj ndax soosu pour moom njaalo dafa baaxul ci ku ne mais waxi ceddu la ko laajee rasulaay muuñ ba reetaan mu xamal na ko nag nii gor nii njaaloo asawlaa gor ak jaam ñëpp a ci yem. Mm-hmm. ndax dafa yiwut am na benn scientifique nee na li tax mu bon. mu ne koo mës a seqal njaalo ba la romb xel mu dem ci la woon. fekk tuum kon tey mun nañu comprendre ci sa wax yi. yaa ngi dégg na. Ah? kon mun nañu comprendre tey ci biir société bu ñu buggee euh, maanaam rôle bi euh, jigéen war a joué ngir société bi jëm ci kanam war na moytu njaalo war na euh, nu mu tudd sax bañ a fen. bañ a fen. waaw. bañ a sàcc bañ a sàcc. bañ a a njaalo waaw. bañ a fooy si bopp ndax bu ëllëgee gàccee romb la nga bëgg ko génn. Mhm. yàlla na benn lu ñaaw ba pare nga rey ni léegi gannaaw loolu aussi liggéey bokk na ci parce que tey ala na wax moo tax ma ne la mhm. bi Seydina Muhammad waxee ba pare mhm. la wax wax ju am solo mu ngi nii ci ci bay xam nga njaay jaayante bi texte la mhm. rasulullah discours dafa guddoon mu ne comme nag baax ngeen ba nangul ma li ma islam sant ba pare mu ne ko inna rijal wa sawa wa nisa wa sawa yéen ak jigéen nag yéen bokk ngeen société bi war a jàngi métier comptabilité nekk ay honorable nekk ay monsieur madame la maire. ay médecin mm-hmm. ay médecin mm-hmm. lu ko waral ngir defar société bi. Mm-hmm. bokk société bi. man feebar naa màkkatal mu karam dafa laa nekkoon mais ñi ma ñëkk a def consultation jigéen la ci màkkatal mu karam jarawal. mais tey boo doon fii ñu ne waaw man Iba bon la ngeen baal ma. jigéen laal du ma laal yow si jigéen sa jabar ji taalal mu wér. boo ngay taal li ngi ci boppam médecin bi la muy jàng yooyu nag psychologiquement yooyu amu ci. bi yooyu yëpp nag ñàkk dox koy waral. moo tax Seydina Muhammad ne kon jigéen war na bokk ci société bi règlement yi àtte na ko toog di indi xalaatam ndax ci la bokk. mais oustaz est-ce que war ñoo def comme wax nga ne jigéen ñi war ngeen a jàngi. jàng li góor ñi mën. léegi nag bu ñu mënee ñoom tamit góor ñi mën bu jigéen ñi feebaree ñu jox leen médecin yu jigéen ñi. bu góor ñi feebaree ñu jox leen médecin yu góor yi loolu. waaw loolu loolu moo gën. waaw xam nga lim bi bëri quoi souvent lim bu bëri lay demandé. gis nga li muy wax nii. dafa am mais boo nekku ci dëkk boo xam ne tënkuñ ci diine parce que bi ñuy jàng kiy jàng médecin ki lay jàng professeur néewul ne góor nga war faj faj mais yow sa religion may na na utal ma ko góor ku ma xool am nga droit wax loolu est-ce que dégg nga wax la. Mhm. Mm-hmm. université boo dem du ma a ah nangam na naan carrément sa ñu. da ngay jàngat da ngay waaw da ngay mën a bokk ci li ñu lay sant yow mais léegi kooku sa détail yàgg moom yaa xam. Mhm. bi ma àdduna noonu la demee quoi léegi toog bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag islam ne nag ah yow ku góor kii amoo xo dool xool awra ku jigéen. nga takk koo nga ñàkk ko takk waaye bu ñu demee ba xam ne nag opération des. Mhm. te kii jàng ku jigéen ko waral opéra boo sàggan man ngaa caa de la fu taq tuudu anfusukum mhm. psychologique mentalité adduna bu dee dox. boo bëgg a wér ci diine mën ngaa rey sa bopp te jaru ko. ki taxaw na ne man ne man. am nga droit non am nga droit ne man. gynéco yi nekk mais dama ne déedéet déedéet loolu xaru lay doon su boobaa xaru lay doon de xaru lay doon moom su boobaa waaw waaw vraiment yaa ngi am ànd ak sa jàngoro ba nga ne góor du la laal il faut góor laal la faj la nga eh, mucc. non suñu taw yi ba xëy na turuur ya wala mu jaas bul toog ak nit bi xëy na duruuru. xam nga la dugg naa ci oto bi jigéen place boobu def sama jigéen wala sama wet naa toog. mais sama sikk mais du ma xalaat ne jigéen laa toogal. Mhm. ma du ma xool mooy rek ñu tiimee jigéen noonu la waaw mais wala mu nekk agresseur mbaa mandikat nga xam ne kii wuyu la. wala solution yi dinañ wax ad daruraat tubixul mahduraat. waaw xam nga bii maanaam ñàkk pexe la. mais gënalu ma. bi maanaam. waaw maanaam ngant yi dañuy daganal lañ tere waaw parce que du du parce que leneen booy la quoi oto yi la te nga wàcc dem si yoon. Hmm. parce que gynéco yi dinañ tiim jigéen du ñu xam ne sax parce que faj bi moo leen. yóbbaale psychologiquement mais sa diine am diine yoo xam ne seen taw yi àggu fa. am yu seen taw ci boobu moo ko moo ko moo ko nanguwut. Hmm. metti na leen moo tax alquran ne laa taqtulu xam nga taqtulu bii mën man a rey papaam ba sàggan dee te warutoon dee bu leen xaru bu leen xaru mhm. taqtul bu leen rey anfusukum ndax inna allaha kaana bikum allah nekk yàlla kaanan ci ñun mhm. rahiman bi du yërmande ngeen yàgg fi la parce que yàlla li mu créé yëpp mhm. pour valeur yàlla la nit da koy valeur je vous aime moo tax mu ne <laughs> bu leen tuur suuf si bu leen yàq deret bu leen nangam xam tax yàlla moo fonk addunaam bi fonk doomu aadama léegi nag eh, bi loolu amee comme ñu ne euh, euh, kii 8 mars maa ngi jégalu xam nga waxtaan yow bi waxtaan ci mën na la. waaw waaw am naa lu ma métti lool bu ci temps bi jot ma dugal ko. dëgg la muy agression ba. waaw Hmm. muy bañ a xëy na waaye nag garaawul garaawul. parce que xam nga agression bi mun nañ ko wax sax mais temps bi tamit. parce que am yenn point yi ah, waaw dafa bëgg a dugg ci maanaam ji agression commencé na avant ko mm-hmm. garaawul après. waaw waaw mun na waaw giiru xëy ba ne xëy na ah. Mm-hmm. marché loon ca Madina bu doon Sénégal ñu ne fii ñu ne Castor. wala Sandaga mm-hmm. wala Sandaga. dafa am benn bi xare Badar passé. xam nga coow julli ñi Mm-hmm. juñu am victoire noonu am défaite. Mm-hmm. ñoom noonu dajale ñoom ñëpp ci benn coalition benn centre. Mm-hmm. ne bis ne que tey désormais nañ embargo tous les musulmans. góor ak jigéen. même bu ngeen bëgg si jigéen sol sol sol ba jekk sax fee lañ ba gën a awraam ñëpp xool ko. muy plaisir ci ñoom. ba leen jënd ak ñoom ba leen dem leen te ñoom def embargo daal. am ndaw soxla bu ñëw ci marché bay na euh, bay na xëy na euh, ci suuq xëy na mhm. di di euh, ci tëgg bi defar lu lam mhm. nekk te malfa bi mu ngi dire ko ab yow yow ne i jigéen a ngi ne xoolal malfa waa ngi dire ko mu ñëw tëgg bi noppil xam tëgg bi da gis na waa ji mais ndaw si toog gisu ko mhm. mu jël birik takk ci ba mu dëkkal toog fay daxaar pour waxtaani bu jógee bu doxee day taxu daanu effectivement bi mu jógee taxu daanu lan la waa ji profité làqa ñu ndaw si awram yëpp gis mu tiit nag di yuux tudd yàlla. moom si ndaw si waaw yéex yëpp di retaan ab jullit bu jógee foofu jógee ca kantingam ñëw bojj jaasi euh, bojj waasi waa rey ko yahudi sot ko hmm. rey waa ja nag coow la dem marché yi naan ko dee ca marché yaa tàgg sa bopp hmm. de reyantam am na am ku ñëw ne rasulullah yi yaa ngi toog musiba am na agale hmm. seen jigéen yoo xam ne bii awraam lañu génn ba ñëpp di ko foto di ko reetaan rek rasulullah daan ne nag tey jii bis ni ko tey jii. wallaahi du fanaan Medina. ki def loolu ki def loolu. ndax lan defoon naa même bu dul su jullit jigéen kenn ko toroxal. kenn ko toroxal looloo tax règlement yu bëri ñu ne jigéen war faa demati kenn ko def. ndax lan jigéen suturee yàlla. dencob yàlla jigéen la ko dénk moo tax jigéen warut a tedd di jigéen dafa war a yiw wax da ko léegi al mar'atu iza salat xamsaha hmm. dañ naan diw diw a koy denc a denc la hmm. wa samat sa hmm. wa xabisa farjaha waddaa at sa wajaa waaye nag illaa bi maasiyati am na sama oustaz wax na wax ju am solo fee ma toogat maa ngi ree xam tax may ree mm-hmm. mu ne jigéen boo julli julli juróom weer weer koor ah, toppatoo sa borom kër toppatoo sa ba bañ a mm-hmm. sàggat sa sa say cër mais mm-hmm. nag waaye nag moom nee na waaye nag ba mu des mooy yàlla kon li yàlla na ko dagaan ko jaaree ko fa moo gën ñàkk jaar feneen fu yàlla kon mooy nga yàlla Mm-hmm. wax sëriñ ba nga wax nga léegi. Mm-hmm. sëriñ Tuubaa lu mu am yàlla ko ko may. dëgg la. sëñ Cheikh Cheikh bu Baax Mbàkke bii nga wax nii. Mm-hmm. dafa nekkoon axlu sunna sunna. ni yàlla. ñun ñuy jaamu ko. Mm-hmm. te bala jàng foog jàng ko. Mm-hmm. kon yàlla nañu ko yàlla fayal. xam naa ne gàtt na trop. bokk na ci lim bokk na ci lim bañoon lool. jaxasoo góor ak jigéen. sama jigéen ne nag dañuy yàgg. Mm-hmm. ku am yar la ma sa doon. ndax ñoo bokkoon rajo. Euh, express Anour FM. nii mu mel la ma sa mel. kon ni mel ma oustaz. na ko lool euh, euh, yàlla yàlla yàlla yàlla ko. ba yéen ñëpp. tey avancement yokk publicité. parce que télé moom mi ngi yëngu ci publicité. yàlla na ko yàlla indi ay partenaires yu nguur gi ñëw mu bàyyi xel wal fajiri wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaye di gërëm sama jigéen jigéen parce que jigéen la rek mm-hmm. soxna seen Ayda Diallo day togg ay aju ajuma yi mm-hmm. teraanga di ko jox daare alquran yi mm-hmm. soxna Umu Kalsum bu Seydou Seydou Ahmed mag ñu baax ñépp ak suma soxna xam nga nag man ci naar yi laa bokk ndax sama soxna naar la. man yàlla def jàmm. amiin wasalaamaaleykum wa <laughs> ñu ngi remercier bu baax a baax uh-huh. Oustaz Diaga waxtaan bi ah non kenn yow disponible nga torop macha uh-huh. allah. Uh-huh. mbokk ci biir kër gi ah. ñu ngi koy ñu ngi lay remercier bu baax a baax. vraiment euh, ci disponibilité bi ci taxawaay bi waxtaan bi rafet na. Euh, waaye aussi di remercier ñëpp di ne 8 mars bi tey euh, suñu bës la donte sax comme di Fatou di wax tout le temps jigéen moom. dañ ko wax a fonk respecté ko mhm. mais aussi jigéen mooy ki nga xamante ne euh, bu defee liggéey bu mucc ay bu ci penc mi rek euh, réew mi day avancé bu baax a baax donc kenn ku nekk dañ ñaa ñaax sa bopp ñaax sa morom jigéen ñi rek nañu gën a góorgóorlu aussi pour le développement euh, du pays ndaxte mhm. suñu réew la Sénégal suñu réew la dañ liggéey ñun ñëpp mhm. jàpp ci combat bi ngir Sénégal jëm ci kanam waaye tamit Fatou may jéggalu di nuyu aussi sama kii rek xam nga ak 8 bi sama copine de na mi ngi may souhaité bonne man di ko souhaité bonne fête ah. ak aussi mhm. sama tata mhm. ku fi tudd Batour. kon mhm. am naa tata bu tudd Batour maa di ko ziar. di nuyu sama tata bi. sama mbokk yi sama yaay ñëpp maa ngi leen di <laughs> souhaité bonne fête ah. ak aussi Mountaga Mountaga Diallo maa ngi koy nuyu moom it mu sa invité euh, fi nekkoon euh, donc tamit ak suñu invité sëñ Mbaye Thiam. Euh, Serigne Gueye di la jaajëfal bu baax waaye di jaajëfal bu baax suñu ki nga xamante ne moo ñu euh, mooy suñu partenaire ñëw suba si di femme entrepreneur ñëw waaw euh, mooy petit petit déj bi tey petit déj bi moo ko indi petit déj di Fatou Kiné Sarr euh, donc mu bàyyi fi numéro téléphone am entreprise am Omar Yacine service Fatou Kiné Sarr mhm. Diallo Fatou Kiné Sarr Diallo nañ yegg ci Diallo daal nañ ci àgg <laughs> <laughs> numéro téléphone am di 70 304 80 36. beneen numéro bi Serigne. wala 77 550 84 36 77 550 84 36. 70 304 80 36 di ko jaajëfal bu baax moom Fatou Kiné Sarr Diallo euh, Omar Yacine service di jaajëfal euh, ñi nga xamante ne ñoo nekk euh, ci technique bi Adjaratou Penda Diallo Guèye di jaajëfal tamit Bintou Fall tonton Pierre.